mooy problème mu sëyam bi ma la wax noonu rek. parce que moom ñëw na foofu. bi mu ñëwee parce que jaaxle moo ko fi indi. bi mu ñëwee. expliqué na ma te man aw ma pour dimbali ko comme dégg naa fii boo fi ñëwee ñu jàppale la te yàlla tax pour sa sëy tax ñu dimbali ko mu jot doomam yi parce que doom yi fi mu nekk kenn wóoluwu ko dëkk ba sax ñi paa bi ak xale bi wóoruwuñ ko ba woo nañ ko expliqué ko ci mais mënuñu cee wax lu sori paa bi mi ngi ngank xale bi nii rek mi ngi ngank xale bi xale bi bu ko xoolee sax du ñemee génn ci biti bu ñu xoolee paa bi maanaam dafa ragal damay dem seeti xale yi parce que sama am na ku ma woone ma naa ñëw xool ci sama doom bi parce que ni xale yi nekkee neexu ko te xamul lan la ñemewul dem ci kër paa bi léegi moom ci la ci ma ne ko ni jaam ne ko ah demal nga xool mais bul fa xuloo bul fa xeex demal nga xool situation bi lan la bi mu demee nee na ñaari xale yi la njëkk a gis ñaari xale yi góor yi ñoom la njëkk a gis bi mu demee mu woo ma ne ma añ naa ba pare mu sama benn kër xarit ma ne ko ah mu ne ma waa mu ne ma waaye ci kanam laay dem ñemewuma dem ci paa bi waaye naa xool xale ci mbedd bi ci la gis xale yi ci mbedd bi ñuy taxawaalu mu jël ñaar ñaari xale yu góor yi woo leen mu ngi leen wooye ne leen ana maam jaara mu ne ko maam jaara maam moo mhm. génn mhm. ci la tase kii ci la ko dóor kurpeñ paa jot na dóor moom xale bu jigéen bi mu ngi nii mhm. léegi bi mu ko dóoree kurpeñ nit ñi nit ñi ñëw kii leen mu daal nangu xale yi ne sa jëkkër boo la fi fekkoon da dee waxu paa bi waaw waxuma laa leen waaye yow keneen la ñuy waxati waaye dootul doon yow mm. am nga chance bi la sa jëkkër sekkul mm. sa jëkkër sekkul maam jaara nee na boobu mu ngi patine ba ñi ma wut a ci yaay mooy doom ji di lox mu ne ko maam jaara nangam taaral ndeyam ci kër gi maam jaara daw xale bu paa bi moo dàq xale bu jigéen bi mu dugg léegi mu ne ko ñëwal yaay ji ne ko ñëwal ñëwal nga toog ñëwal kaay wax ak man ba pare nee na jotul sax agsi ci moom ci la ko paa bi xoole daal ne ko boo agsee dama lay mm. maa ngi dem di lox daal di daw dugg ci kër gi ma ne ko waroo woon sax xeex man doom bu jigéen bi rek laa bëggoon sax ñu récupéré mm. parce que jigéen ndax ndax bi mu njëkkee histoire ak jëkkër ji paa bi dafa bàyyi ba jëkkër ji dem géej mu dem ci néegu xale bu eh, xale bi di di sumis tubéy ji di jël awraam bi di ko teg ci kanamu xale bi di bomb di def yi kenn xam xale bii nii wala doom ji doom ji kon paa bi jéemoon na violé xale bu ndaw bi waaw ba xale bi daw dem ci yaay ji fa mu fanaan wax ko ko ne ko yaay sama maam lu nekk la ma doon di ma làmbatu ba pare jël paaka de bu ma ko waxee mu rey ma ah kon paa bi mi ngi doon jéem a sàkku xale bi nii nii waaw ci la def loolu mm-hmm. bi affaire bi bi affaire bi amee jëkkër ji ñëw mu wax ko ko jëkkër ji ne ko man sama yoon nekkul ci loolu en tout cas daal waaw en tout cas daal xale yi booy dem bu leen fi ba loolu la njëkkoon a wax ci la jëlee xale bi ànd ak moom jël ay bagaasam dem pasi toogi fa mhm. bi mu demee mu ne ma yumpaañ ma ne ko oma fu ma nekk de xam naa ne sa kër xaf na metti na waaye dama bëgg a liggéey pour dimbale sama njaboot ndax xam naa ne xale yi seen papa du leen defal dara te man maa leen yor fi mu nekk nii ma ne ko ñëwal man ci liggéey quarante mille mhm. mu ñëw di liggéey di exactement taban jëkkër jaar ci ginnaaw nangu ci doom yi jëkkër ci jaar ci ginnaaw ànd ak paa bi jiital ko papa jee ko xale yi duñ fa toog ànd ak xale bu góor bi ñu dem pati mu woo famuy muy liggéey man fekkuma fa won sax dama ñew ñu ne ma kumba neena mu ngi dem ndax jëkkër ji dem na ak maamam maamu xalé bi neena dañuy jëlé xalé ma ko kumba dama waroon xaar ma ko ah mu ne ma waa ma ko waaye ci la woote man bima ma jot kumba mu ne ma ñu ngi ni ci kër sa papa dama ko naroon yobbu police sa papa neena duñ dem police ñom daal ñoom papam mom papa mo nepp neppal papa mo nepp neppal xam na lépp xam na ni xam na ni xam na ni papam xam na ni magam violé na domam te xam na ni magam mi ngi violé sëtam mu ne bu ken dem police waaw papa ji xam na ne mom papa ji xam na ne kee sa papa waaw xam na ne mag dafa sik daanee mag ji dafa si lan moo tax koy nëppal parce que nit da ngay bëgg sa bëgg sa doom bëgg sa mbokk tuuti bu fekkente ne mbokk am na sëy am na ba problème am na parce que dagan na ku nekk dem mais nag na nga ko teg ci yoon tey jii nii boobu mën ta yor ay xale ci biir kër te moom rek moo fa nekk xale moom moo fa nekk yaayi xale bu góor bi du tudd paa bi ay doomam yu doomi jiblim yi duñ ko tudd kenn du fa dem kenn du wax ak paa bi kon paa bi daal moo yar moo yar sët yi nii moom daal moo yor sët moo yor sët li te góor la moo nekk ak ñoom ci kër def lu ko neex lu ko neex lay def léegi jamono ji xale bu jigéen bi xale bu góor bi garab bi ñu bi ñu audio bi di nga ko dégg sa doom ji ñuy caqat naqatee moo lay naqatee mu ngi ci audio bi kan moo wax loolu xale bu kon xam na ne papa mi ngi violé doomam waaw man loolu lañ mën a wax mm-hmm. dana ko yow yaa lan moo tax nga xam loolu mu ne ko waaw en nag lan lañ waxante bi ñu waxantee daal ci la daanu jëkkër ji moo ko woo wax ak moom ba mu waxee moom ba pare rek xale bi dafa daanu waaw xale bi daal moom nee na ko daal xaw nag ban heure la ko woo mm-hmm. mais bi ñuy waaja añ bi ñuy yekk añ ba toog war a añ añ ci la xale bi crise rek aj ba di daal ne daal la xam léegi nag bi mu bi mu bi mu xoolee mu ngi xool boo defee nii bët bi mu ngi raf mais mënul gis xam mënul wax mënul wax mënul yëngatu cër yëpp bañ patron bi lañ woo hôpital grand Castor fii CTO lañ njëkke nekk nañ fa ba six heures ñu ne ma ne ko comme lii comme lii nii metti na te affaire yi demee na nii nañ ko jàllale parce que lii hôpital fii buñ ko nawee entré day metti te man yoruma xaalis jamono neexu nañ ko nañ ko jàllale hôpital yu yem yi ba xam xëy na dinañ ci man dara yaa ngi dégg ndax bi mu njëkkee histoire ak moom lii dal na na du benn yoon la ko mas a mu crise bi benn yoon la ko mas a déedéet histoire naag moom mu woo ko téléphone saagante ak moom bi bët setee sama kër la crise yi ma yóbbu ko nabi sukkër waaw mu nelaw ba yeewu ñu ne ma lii bu ko dalaatee mën na ko indil problème boobu te loolu waxoon nañ ma ko loolu moom xam naa ci ne sama kër la ko woowee ñaari xale yu la yónnee pour ñu ñëw defar pour ñu ñëw jël si xale bi xale bi ci la leen expliqué légui léegi wat bu mujj bi ci la defaté crise bi mais bi dafa gëna metti gëna fa metti parce que nekkatul xalam xelam xàmmeetuma xàmmeewul yaayam xaméwul ni jaayam yaangi dégg fim mu toll di ñu bal ma ci cadre bi mais mën nañu wax ni dafa dof parce que biñ ko yéggal ma ngi nan kon xamé nga mom mu naan maa ngi fan xamatul dara dalal xel kii yaangi ni dalal xel ngeen ko yóbbu jamono ci ko yóbbu instant bi parce que ku nekk sa xel do fa dugg te mom ci enregistrement bi mi ngi nan man parce que lool dina ko dagg aussi ñu tek ko mi ngi nan man jëkke ji da ko wo téléphone ne ko bala tabaski dina am lu la dal lépp dëgg la moom wax na mako audio bi sax amna lu mu ko ci ci wax nee na ko balaa tabaski di nga xam ne lépp dëgg la te bu ma tëb bu ñu demee tabaski di nga xam ne lépp dëgg la carrément te instant bii mu ngi Casamance xaw ma jëkkër ji waaw xaw da koy tuur xaw ma koy def mënuñu laa wax daal lan la ko war a def fi mu nekk nii parce que sëy la woon sëy bi war naa jeex ku nekk war naa dem jàmm am ndax kii jar kiyam la jigéenam te am na loo xam ne nit ak si jigéen lu métti métti jigéenam la kon bu ko jëlee sëy am na seen diggante sëy jeex na na jeex mu mu jàppale ko ci ay doomam te wuti keneen mais ñaar fukki at ak nga am coono bii ba ñu baal ma ci kàddu gi dox fekk la ci métti na métti na passé na métti fu mu nekk nii ñemewuma koo tëral foo xam ne amul ventilo sama néeg laa koy tëral ci suuf tëdd ci kaw néeg bu ndaw laa yor presque dix personnes xaw ma fukki nit ak juróom-benn mën nañ faa tëdd parce que dama leen di rangale du ma xam nan laa leen di def moom dama ko dimbale rek ndax aw ma moyen aw ma ma ko dugal pour mu jàppale yaayam moo tax ma indi ko di ko tëral ci suuf tëdd ak nijaar ci kaw léegi yóbbu ngeen ko hôpital fu mu toll nii yóbbu nañ ko hôpital Fass barki dé barki bi affaire bi te te ki bi te arrêté ci lañ ko yóbbu Fass biñ demee ci lañ neñu lii stress la te bu góorgóorlu dugg mën naa xel mi mën naa dem mais nañ ko yóbbu après ci lañ ñu bindal kayit bi ñu dem dagg ticket ticket bi nee nañ dina dem ba semaine léegi ci lañ dagg ticket bi ñu yóbbu ko foofu biñ demee ñu jox ñu rendez-vous tey bi ma demee tey gis nga kayit li ñu bindalaat rajo lañ ñu bindal ak xool nee yi na ko jël nelaw def tranquille ba xam su ma demee nii dama ko dugal ci biir bu ndekkee ba pare sangu bu ndekkee ba pare daal di tëdd ma tàlla ko garab yi muy nelaw ba añ jot ma yee ko mu jóg añ bu toogee tuuti ba ay ba ay timis mu lekkee dama koy joxaat garab yi loolu adduna bi yëpp man nañ ma seede ñama bokk dëkkali ci kayaat ci di filaawo it mën nañu seede nangeen ngeen fa ñëw def invigation ak ci nit ñi laaj leen ndax moom du xale magam jëmu la su fekkoon loolu mu wax dëgg ci moom moom mu ngi fa ñëw 2009 boobu ba léegi lu tax waxu ko lu tax déclaré wu ko kayaat gendarmerie mu nga fa te moom yàgg naa dem gendarmerie déclaré wu ko waxu ko papam bi ko jur waxu ko it ki nga xam ne mooy sunu porte parole kër moom lañ tuddee kii muy Moussa Camara donc yow da ngay affirmer ni loolu amul mosoo ko def mosula am euh, tey wax nañ ne euh, du moom moo ko wax mais ci ay kàddu ñun dégg nañ ñu ne xale bi dem na wax ne da nga ko commencé sàkku xale bi mooy doom bu jigéen bi euh, loolu amul tamit xam naa loolu ngay wax loolu it ba ma ko déggee laa woo rakk kii suñu rakk la mooy suñu porte parole kër mu Moussa Camara moom kooku moo yoroon responsabilité moom ak ay famille yépp ma woo ko wax ko ma ne ko nag dinaa yóbbu xale bi hôpital dinaa ko indi fii yéen ñu yóbbu ko hôpital yow wala moom wala ay ndeyam ku ci man ñu ànd ñu dem hôpital mu ne ma affaire viol lu garaaw la dëgg la tuumaal na la waaye boo ko yóbbee yoon tey léegi moom loola amul lépp lu ko yoon waroon yoon waroon a teg yoon moom la koy teg te boo ko téyee dugal ko ci béréb yow yaay suñu kilifa ñun ñëpp tax gannaaw bàyyi taawu bàyyi te yaay taawu bàyyi yaay léegi yow nangu nga ñu yóbbu xale hôpital ñun ñu ah. def contre expertise xoolal suñu bopp ñun suñu ak suñu ay médecin waaw hmm? waaw loolu nangu nga loolu loolu laa nangu loolu laa defi moo tax nangu nga ñun ñu yóbbu déedéet déedéet xale bi am na ay bàjjen dama ne ñun waaw nangu nga ñun ñii ñu jël xale bi yóbbu ko hôpital xoolal ko suñu bopp ak suñu médecin suñu propre médecin am na am nay bàjjen fii ba hôpital principal fu ñu ko bëgg yóbbu ay bàjjanam bu ñu teewee médecin bu ba mu ànd ak ñoom kooku amul benn difficulté donc il faut ay bàjjanam ñoo koy yóbbu kay pour keneen mooy taxaw yóbbu ko ndax am na rôle yu mu yéewoon kii rakam la moo ko doon wax dinaa la baaraam pour boo demee ne sama maam moo ma doon sàkku Euh, xale kat moo ko wax. yaayam moo ko doon wax loolu. moo daal baaraam xale bi. dem ni ko boo demee nga ne sama maam moo ma yàq. adduna bi yëpp. mën nañ ma seere ña bokk dëkkali ci kayaat ci di filaawo it mën nañu seere na ngeen fa ñëw def investigation ak ci nit ñi laaj leen ndax moom du xale magam jëmu la su fekkoon loolu mu wax dëgg la ci moom moom mu ngi fa ñëw 2009 boobu ba léegi lu tax waxu ko lu tax déclaré wu ko kayaar gendarmerie mu nga fa te moom yàgg naa dem gendarmerie déclaré wu ko waxu ko papam bi ko jur waxu ko it ki nga xam ne mooy sunu porte parole kër moom lañ tuddee kii muy Moussa Camara donc yow da ngay affirmer ni loolu amul musoo ko def. musula am. Euh, tey wax nañ ne euh, du moom moo ko wax mais ci ay kàddu ñun dégg nañ ñu ne xale bi dem na wax ne da nga ko commencé sàkku xale bi mooy doom bu jigéen bi. Euh, loolu amul tamit xam naa loolu ngay wax. loolu it. ba ma ko déggee laa woo rakk kii suñu rakk la mooy suñu porte parole kër Moussa Camara moom kooku moo yoroon responsabilité moom ak ay famille yëpp ma woo ko wax ko ma ne ko nag dinaa yóbbu xale bi hôpital dinaa ko iddi fii yéen ñu yóbbu ko hôpital yow wala moom wala ay ndeyam ku ci man ñu ànd ñu dem hôpital mu ne ma affaire viol lu garaaw la dëgg la tuumaal na la waaye boo ko yóbbee yoon tey léegi moom loola amul lépp lu ko yoon waroon yoon waroon a teg yoonu moom la koy teg te boo ko téyee dugal ko ci béréb yow yaay suñu kilifa ñun ñëpp tax gannaaw bàyyi taawu bàyyi te yaay taawu baay yaay. léegi yow nangu nga ñu yóbbu xale bi hôpital ñun ñu def contre expertise xoolal suñu bopp ñun suñu ak suñu ay médecin waaw hmm? nangu nga loolu. laa nangu loolu laa defi. moo tax nangu nga ñun ñu yóbbu. déedéet déedéet xale bi am na ay bàjjen. dama ne ñun. nangu nga ñun ñii ñu jël xale bi yóbbu ko hôpital xoolal ko suñu bopp ak suñu médecin suñu propre médecin. am na am nay bàjjen. fi bu hôpital principal fuñ ko bëgg yobbu ay bàjjanam bu ñu médecin bu mu and ak ñom koku amul ben difficulté donc il faut ay bàjjanam ñoko yobbu waaw kay pour kenen moy taxaw yobbu ko ndax amna rôle yu mu yewon ki rakam la moko doon wax dina la baram pour bo démé né sama mam moma doon sax ah, xale kan moko moko don yaayam moko do wax lool mo daan baram xale bi dem ni ko bo démé nga ne sama mam moma Voilà. <laughs> Eh, si meer. nit ñi fu mu taw que si meer sa sa si meer sa retour bi sa tas bi nga indaale dafa rëy de. si meer. si mais da ngeen ñu bàyyi ñu laaj nag fii bu leen fi xuloo wala téye seen bàyyi leen ñun ñooy laaj. bu ñu leen laaju la ngeen di noppi. yéen mhm. amoo leen compte bu ngeen di réglé ci studio daa xat. voilà waaye léegi nee nañ ñoom ñi ñi déglu ah, man da ngay nii. léegi léegi su weer léegi nañ leen wax moom moom goro boobu noonu ak ak kii jëkkër ji. Hmm. nañ yéen. baax na yéeg waaw. waaye nag sa yar yéegaale de suñu sécurité yi nañ yéeg ñëw waaye man li ma jaaxal waaye bàyyi ba mu ñëw sama laaj ko ko bàyyi ba ñëw ma laaj ko ko rek ah ah. man man déjà ah? man fi mu ne musul woo xale bu jigéen bi di wax ak moom quoi que ce soit. te audio yi ne fii te audio yi ne fii loolu laa bëgg ne. waaw léegi bàyyi léegi bu ñëwee. mais man tamit loolu tamit damaa bëgg mu ne. mais xam nga enregistrement xam nga yaay mais mais da ngay noppi ñu lay laaj waxoon waxoon naa la ko sànq. yaay nee naa la ñun ñoo lay laaj. yaay léegi ana kuñ foog nii kan la xanaa ci doom yi la. doom yi la fan daal doom yëpp. ah jaaraane ne. kaay leen boobu ñu interpellé nag. ñu war a saytu xale. comme ça xale yi ñëw nañu Dakar. non xale waruñu sax dugg. parce que non war nañu dugg mais waruñu delluwaat. léegi kaay leen léegi alaaj alaaj alaaj ñu ngi interpellé ñu war a saytu alaaj yaay procureur bi man. man daal man jàppee waaleykum salaam papa kaay nii nee kaay toog nii. noo tudd yaa jaar. yaay jaara mu ko baax tuuti ça va. yàlla papa toogal nii. na ngeen def. def ça va ça va bi ngeen nekkee ci suuf doon ngeen déglu. ah déglu leen waaye waaye déglu ngeen mbir mi démb. man géej la ma fekk. géej nii. kaay jege nii sama micro géej la la fekk. Euh, fan Kayar. Joal. ah maa ngi woon Joal 1704 si biir géej. di di ah 1704. waaw position ndox yi ma nekkoon. position ndox yi foofu lañ la wooyee. bi ma teeree ay 18 heures. waaw la ma suma benn mag bu jigéen buy sëy Touba. waaw woo. waaw sama beneen mag bu jigéen bi sëy xat. wax la lan lu la wax. ne ma. waaw ndax émission bi ma ne ko waaw. bu na ma kumba. waaw dugg na ci rajo. waaw ci émission bi. waaw. nee na. waaw da ko doon dóor. waaw di ko menacé. waaw di ko tëddee. waaw sa papa di ko tëddee. ok léegi kon maanaam si kaw gàttal daal ñu nettali la émission bi. waaw d' accord léegi nag yow déglu nañ la léegi nii tamit nga wax. Mhm. nee nga mosoo koo dóor. ko dóor. mosuma borom këram. man maay borom mosoo ko dóor. mosuma seexal moom kii mooy sa papa. góor gi na nga def. sant woon la. waaw kamara yi la kamara kamara sa doom ji mu ne mos sa dóor jabar mosuma ko fekkee de. ah yaa nekkoon sa kër ga papa te mag nga de mosoo fekk fu mu ko dóoree. bu ma xale maa ngi juddule 4 avril 1945. waaw kay waay déet yow kay fi mu ne nii papa loo wax ñu gëm la ndax. bu dul dara sax at wi bu ma xale. d' accord léegi xam naa ne yàgg yàgg damay njege naayoo sama ndeyjoor sama biir bàmmeel. ak yii ak yii dëgg. dëgg la dëgg la léegi. waaw damay njege sama ndeyjoor sama biir bàmmeel. d' accord léegi papa. léegi papa léegi ma ne mësu ko dóor nee na mësu ko dóor de laa wax de te yow dëggal nga ko waa kon lan lañ war a jotee sëy woo xam ne amul dóor amul xaste amul dara lan moo indi seen coow li papa. li ñu jotee moom peeku ko man la. yaa ngi moom lan ngeen jotee. li ñu jotee. waaw dafa daan dem géej di ma teeru si. damay non non sëñ bi mu nga baal ma loolu wax nga ko ba noppi sànq mm-hmm. bi ñu lay jël. noo amee dafa laaj ni góor gi ndax mësu koo dóor mu ni déedéet mu ni. muni gor gi sa ak yalla ndax mus nga ni euh, nga ni ba ngeen di jote kon fekku fa pa bi ah, mais kon bi ngeen jotee sa pa bi nekku fa dang ko door amul won door kon graawul kon aaju muy ñu muy détail ala di continue gagnal temps d'accord mais comme dóoru ko gagnal temps ok Wa légui li bëgg xam moy wa kon légui mom lan mo wara tax rek yeen seen digeunte bi ni ñagas rek di tax li nga netali waxuma yi ngeen ak yoy de wala yow da nga jekki jekki ni rek mom sa kanam neexatu ko wala yow kanamam neexatu la bëggatoo ko xanaa. da ngaa jékki-jékki nii amul dóor amul xel amul dara. waaw nekk naa nit koo xamante ne. waaw alalu àddina. Hmm. tiitalu ma dara àddina tiitalu mais xam nga li ma tiital si sama àddina. mooy su ma baat su ma biir kër. su ma demee ba mënatuma ko am ak bépp jigéen bu ma mën a doon may dund ak yow. waaw su ma baat mënatuma ko am ci sama biir kër. waaw nga dem ma dem. très léegi. kon léegi yow yow tontu nga comme ça ñu gañ a maanaam da ngaa dem a dem a dem ba moom déggalatu la. te ngay boroom këram ci biir kër gi boo ne ko benn mu ne fukk boo ne ko toogal mu dem boo ne ko demal mu bañ loolu ma leen jotale nga ne dem ngeen nag ba nga xam ne sa baat moom bu koletul ci kër gi nga dem mu dem waaye sa biir wax ji da nga ne yow fase woo fase wu ma bi muy dem loolu lan tere ma tere gi géej mu bañ yaa ngi may tere toppandoo sa ay moroom yoo xam ne yamu leen ndax yow seen lépp dafa mat te yow sa dara matul ma ne ñàkk fay lay jigéen hmm. basewul nga topp góor goo xamante ne dara motul danay dem nga topp góor bi nga xam ne dara motul kon yow yeewi nga ko ah yow yeewi nga ko yeewu ma ko danga may dégg ma expliqué la comme action nu li nu waxante ni mu demee non xam nga loolu expliqué nga fii dama ne hmm. yow da ne sa baat ci biir kër hmm. moom déglu la kon nga dem mu dem maanaam nga dem mu dem mooy may nga ko baat yeewi nga ko waaye si sa biir wax yow da nga ne yeewi woo ko yeen legi yeen ñaar mënu to leen dund pourquoi yow nga ne dee do ko yeewi wala day yomb li tax mané du ma kay yeewi waaw waxal rek waxal rek li ay kayitu lan la ni ay kayitu ordonnance waxal maanaam li non dama indi papier yi mu leer la mais waxal waxal waaw del waxal non graw lo graw tax mané du ma kay yewi moy kané daf mom daf ma sa papa moma wo téléphone <coughs> bimu mu bi mu wo téléphone mom la wo téléphone nga day bay day bay waaw day bay nawet ñëw. waaw fas bi mu doon bayee. waaw ak mbaam bi mu doon bayee. waaw daanu. léegi mu gis benn koo xamante ne bokkam la. day jaay benn fas. ci nawet bi cent mille francs. léegi bu fekkee moom yor na cent mille franc mu abal ka ka moom mu ñuy wax ma ne ma sama papa dafa ma abu cent mille franc mais yoruma cent mille franc yi bu fekkee am nga cent mille franc yi waaw nga aal ma ka ma yëkkati cent mille franc yi envoyé ka ma wari moom papaam ci boppam léegi bi mu demee ba wax loolu ma ne ko pour ma bàyyi la mu ne am hmm. ah, ma ne ko loolu ci yow la du nekk ndax sëy du fal force yow yaay bëgg ma bëgg soo demee ba bëggatoo am nga plein droit waaye na la remboursé waaye na la remboursé moom joxuma joxuma papaam ndax papaam teguma ko ci loxo

xaalisam xaalisam sa xaalis. waaw nga bëgg. mu fay la ko nga baal ko. xam nga cent moom kenn du fi tase sëy. man moom fu ñuy defaree sëy laay fekkee waaye fu ñu koy tase moom mhm. boo leen tas bu la neexee bu leen génnee ba ci moom boo la yëgee ba ci kaw taliba mhm. mu jox la cent mille ngeen ñaanalante jàmm ni ñooy mais dama ne mais studio moom kenn du ko fi tase ñu naan te studio amee ay la sëy ba tase woon léegi mhm. kon yow kon ci yow ci gàttal cent francs la lay yorel ba pare melni lu lay xoñañal ak yu dal ndang alaji di la kokko legi yoy sa xaliss nak du demé non d'accord legi deg nañ ko yow ne nga ki sa bay bi ak bayam ño bokk nday ak bay du non du non waaw kon ay mbokk ngeen waaw yum bañ gay yum bañ gay papa xara rek bul yakam ma ngi ñew den euh, yum bañ ana yum bañ yum bañ ah. yum bañ ah. wa legi kon moom lii daal moo fi bàyyi yéen tam seen doom ji ñaar fukki junni moom moo tax booba tey muy souffrir lii moo ko fi ba wax de rek moom moo ko fa bàyyi dëgg la. ah man de loolu mosuma ko dégg wax moom. xale mosu ma taxaw nii. xale bi de yaay ma ngi hmm? mu ñëwee wax. jege seen nii waaw lu mu wax. wax keroog ba mu ñëwee lu mu wax yaay yow yaay yaayu xale bi. waaw yaa ko su jur. waaw waaw. waaw. wax na leen loxo na la wax ñaar fukki junni. mosu ko maa ngi ko doog a dégg. sa borom kër wax na la ko. déedéet. mais moom dafa am ay firnde dafa am ay preuve. lu mu envoyé sa jëkkër directement. waaw moom koo wax. mu ma ko maa ngi koy doog a dégg tey. ne ko ko joxee mu may ko baatam. Hmm. mosoo leen ko dégg mosuma ko dégg. Hmm. man mii ko dégg. moom la mosoo mais dañuy wax dañuy wax lu logique alaaji. waaw euh, ay ay mag lañu duñu ay xale. waaw cent mille francs. Hmm. bu jëkkër lebal jabar. pour mu fay pour mu euh, may ko baye mu jënd ko fas baye mi nga xamni non non ndaw si ba yow da nga lebal sa jabar xaliss mm-hmm. mu may bayam mm-hmm. lolu xaliss bobu bor bobu nous ta obstacle ci mm-hmm. parce que ñom ñaar seen ñaari baye ño bok kon mom déjà la lebal mais bu intermédiaire ci digg bi waxi mag quoi bu kon donc ndaw si loolu mun na bañ a nekk obstacle ci seen sëy waroo ko cee xas waroo ko cee dóor waroo ko cee war ko waroo tamit a tee bu ngeen bëggee tas ngeen tas ci warut a indi problème bii ngeen ak si tey cent mille francs yooyu parce que ndaw si laale wu ci parce que bu la neexul woon doo ko doo ko lebal bàyyam tey sa sa ko bàyyi la léegi papa wala boog papa daa mel ni da ngaa bëgg a wax de papa waaw daa joxal bàyyi bu wax ah, waaw bàyyi ñaar fukki junni yooyu kon fi mu ne nii moo indi coow li de dafa mel ni parce que kii nee na xulóowuñu mosu koo dóor. du noonu. déedéet déet du moom moo ko wax damaa bëgg kay nga ne ma waaw moom moo ne mosu ko dóor yow it nga dëggal ne fekkeewoo fu mu ko mos a du noonu kon mel na ne kon kii lenn rek moo ko jotale mooy xaalis bi mu jël lebal ko bàyyam. la mu la wax jaaraat ci ñàkk yilif gi moo indi jote bi. ñàkk ñàkk yilif gi moo indi jote bi loolu dépassé nañ foofu mënuma delluwaat ginnaaw papa mais dama ne. li nga xam ne maanaam mooy obstacle bi baare seen diggante ba mu yàqu nii. sa doom ji moo ko wax de man waxuma ko de. waaw loolu lay déglu. mooy ñàkk yilif moo waral loolu gis nga ñàkk yilif lii ma la andil këy tribunal la jógee tribunal tribunal départemental dégg nga ki ko doon. pour ah. avocat bi ko doon àtte ak procureur bi yëpp mi ngi ci ak avocat bi ma jëloon alamaan yi mi ngi li mu def ba loolu yëpp am ak këyit yi nga xamante ne moom wax na ba nu yóbbu ma ba ma juddoo ni kenn musuma arama sàngal mais ay fitnaam ak ay problème am tax na ba nu yóbbu ma tribunal correctionnel ma jël trois avocats numéro avocat yi ma yoroon. moom moo la porté plainte. porté plainte moom moo dugg ci fitna. moom moo dugg ci fitna ba rakkam 2013 mi ngi laaj ñu leen de mi ngi def bekam mi ngi def bekam ah, loolu moo tax njàngam yàqu ba rakam jooju dañ ko tëj waaw ah, d'accord ah, kii tëj suma papa euh. ji tëj ko ci moom moom moo porté plainte wala porté plainte moom beneen famille la dem am ak ñoom problème waaw dama ne beneen famille waaw mais dama ne kii c'est que yow mii sëy yaa xam sa lal mattinam na mel mhm. waaye bàyyi nag li ma wax moom sama papa ji toog mhm. mooy yéen ñaar tey soo leen demoon ba kenn ki rey morom ma mhm pa bi rek mo perte ndax yeen ñaar ñi mo leen jur deug la wol deug kon waye mom ni mi ni mi réaction ni yeen sa itam du dalal xel tay buñu demone tribunal ni papa di defé réaction ni ni eh, dafa melni ni ku la faral lool bu mu upp amna ci nak sañ-sañ waye loolu yi waru ko mais ku ñu taañaañal ndaw si itam nee na bay da bu guddi ba nga dem geej nga ñew nga ñew nga ñew di diko di diko di ko amna di ba yaaram def loolu loolu la bëgg waaw tontu mhm. ndax man. Mm-hmm. du ma xale. Mm-hmm. magam jëmm la. Mm-hmm. waaw maa ngi judd le 4 avril 1945. dëgg la ñaareel ba. waaw mii du xale. waaw magam jëmm la te ay dit la dëkkal. waaw ndax moo ngi judd le 91. waaw waaw 91. bon du xale. boobu ba léegi. lu teree mu wax ko. lu teree mu wax la te ñaari bi loolu noonu lu teree bàyyi ma ngi dund.

ñu dem ci benn médecin bu koy xool. Mhm. xam nga lii suñu référence fi mu toll moom jullit la man jullit la mhm. jullit yëpp daje. Mhm. kaamil alxuraan mooy suñu référence. ñu waat. bu ñu waatee ba pare nag. la mu ne man sama sët bi dama ko doon violé dama ko doon tëdde non moom moom moom avant ñu ñëw ci sët bi. moom avant sët bi. waaw bu ñu waatee. ba pare ndax xam nga loolu lu mun ko dëggal. mënul dëggal ni man dama ko doon tëddee. moom mi waaw waaw waaw mënu ko dëggal. man mënumaa wax it. ba set ba set. Mhm. ba loolu taq na. waaw lay taq mu lay setal mooy sunu référence di kaamilu alxuraan. Mhm. ñu jublu penku àdduna bi daje borom xam-xam yëpp daje ñu waat ndeyam baayam ak ay samay rak ñun ñëpp taxaw ñu waat. mais xale mais xale bi dañ ko doon baaraam ñu ni. waaw xale bi xale bu jigéen bi. waaw moom moom bés mi leer na d' accord waa waa dong leen di setal. d' mais xale bu jigéen bi léegi taw bi dañu ko doon baaraam. xale bu jigéen bi mhm. moom wax na ci dëkk ba. ne man dama ko doon saay saaye ndaw su ñuy wax Mati Jaay dëkk ca kër ga. boo ko ko wax. léegi bi bi ma déggee loolu bi ñu ñëwee ma woo Mati Jaay ne ko Kumba de nee na yow yaa wax ne man dama doon saay saaye maam jaar. mune ma kumba de dafa xam du ñew fi waye nak man fim mu toll nii damay booti cheikh waaye bés bu ma amee tànk dinaa ko porte plainte yóbbu ko ci yow ndax mo sosal yak sama der buguma jaxasi sama dëkkandoo bon dina ko yobbu ni nak ñi nga xam nak neena ñom musu ñoo deg man kisela c'est la première fois tay mo mos ko gis muy kee koñ ba mosuma ko xam mosuma ko gis suma ko dégg. waaw ah, waaw kooku aajuwul guddam a tax moom commencé wax dama ko ni mais bokkoo ci wax ji noppi. donc moom a tontu. kon kon léegi ñu gën a wax ji mooy. waaw moo a fexe. waaw léegi waaw moom jigéen bii. waaw yow it am na am na am waaw mais yow am na loo loo wax ci moom mii. waaw. nga ne nga ne moom mii moo doon saay saay sax doom ji moom xale bu jigéen moo doon saay saay doom ji pour taxal la. waaw taxal ma rakkam bu doomam góor ngi nii moo ko doon wax naan ko kaay ma baaraam la moo ko wax moom moom moom mu ndaw bi déedéet déedéet yow yow waxuma yow yow yow waxuma waaw non dama ne waaw déglu waaw déglu ma xam na góor waaw ma ne wala yàqu na lu yoon dax man xam naa yoon waaw lu may yoon teg waaw d'accord waaw waaw d'accord dama ne lu ma si yoon teg waaw dama ne nangu kaa appliqué te xam nga li mu wax déedéet papa non non kii gis nga non papa non xam nga li problème bi mooy man papa xam waaw fi mu toll nii waaye comme que waxtaan la waaw xam nga li fi ñëw. waxtaan waaw bu leeral waaw waaw li fi indi mooy. waaw dama ne tuumaal ñu ñëw muy leer. muy leer waaye la ca des. ku loxo procureur la nekk. te muy dëgg sax nag procureur moo yor. képp ku yéen ci ci situation citoyen moo moo la yéen mais mais papa dossier bi ñun la gën a intéressé. damay dëgg damay dëgg papa may ma tuuti. papa papa déglu da ngay dal da ngay dal. papa wuyu ma da ngay dal papa da ngay non papa papa dama ne papa euh, sax ñun sax dem nañ ba mbir mi nekkatul ay mbirum journaliste kii tribunal ak kii ñoomin seen waaye dafa dem ba mujj nekk mbirum famille. looloo tax man ca sama ndorteel ak wax. bu wax fu la amul balaa nga génn fii tribunal ñëw de. waaw papa waaw rek alaaj man non attends non euh, eh, sëñ bi may ma yow. Eh, déglu ma yow waaw mais sëñ bi déglu rek. c'est que gis ngeen yéen yéen jigéen ñee waroon di wax sax dafa mel ni wax gi nag day bëgg a féete seen côté te xam nga yéen nag bu seen wax ji ëppee yu jigéen ñi bu mujjee dinañ ni góor ñi dañoo newul ci dëgg man li may wax papa lenn kese la non dama ne waa mais déglu ma rek papa dama ne ko moom laa wax bàyyi moom taxawaayam wi nga xam ne moom la borom ma leeral li wax li mu la wax may ma ma non ne dama ne dama ne ko amatul beneen question boo xam li la ci laaj tontu ko gis nga yow gis nga yow yow nitu fitna nga waaye yow yow jëkkër ji yow nitu fitna nga ah, oh, si si nitu fitna la papa te yow tamit fitna gi sa doom gi nekkee yow da ko cay jàppale gis nga ay nit ah, waaw non non li ngay wax nii rek wane na ni yow da ngay jàppale sa doom ji ci fitna hmm. nan laa ko jàppale ci fitna lii lii rek preuve buy wane ne ah. yow sa doom bu fareeg bu farul yëpp yaa ngi koy faral te yonent dafa ne sa mbokk bu tooñee faral ko bu tooñul faral ko ñu ah wa ko tooñ moom nuñ koy faralé nga ne xala nga teg ko ci siratul mustaqim bo wax dëgg kay mom nga andal waye yow ni ma sa réaction yow papa moy sama dom ji moy am dëgg sur toute la ligne ñin dañuy waxtaan dama ne la yow en tant que papa nan la nan la dama na mu maa nangul déglu parce que yow yow ya jur kii mënoo muusa ka muta ba do ko jur ya ko jur ndax yow ak bayam yena bokk ak bay kon ala kulli alin sa dom la du non du non ñun de ñun loolu lañ xam waye yow ni nga xam ni nonu ngay défé sa réaction kut ko kut nekkul ku baax kii bu bonee it kii daa bon ndax yéen a bokk dara donc bu naawee kii naaw. waxuma la waxuma la waxuma la waxuma la ne yaa ko wax de. waaw déedéet waxuma la ne yaa ko wax dama ne. dama ne ñoom ñaar ay mbokk lañ laa wax. bul ma wax loolu ma wax non dama ne. non waxuma ne yaa ko wax de dama ne ay mbokk lañ. lu góor lii bu naawee lee naaw ndax ñoom doxuñu daje ci mbedd mi ay mbokk lañu. man taxawaay wi ci boppam man taxawaay woowu man laa lay wax. Hmm. xam nga li ma la wax yow yaay suñu bàyyi ñun ñuy toog fii tey ci studio ba ci rajo bi yëpp da mm. ñoo njaboote da ñoo waroon fekk ñun ñuy am nu ñuy doxalee ak yenn fitna yi sax nga wàccee ba mu sedd ak loo mer mer mer mer mer mer mer yow moom kasarit mi rek loolu moom moo la war man loolu laa wax léegi nag mbir mi mënoon naa bañ a yegg si fii nii parce que kii sa borom doom ji ca commencement bala saafara wax ja wax ja sax mënoon nañoo bañ a continuer ba 30 mm. ndax moom wax na teggi na tuuma nga wax teggi tuuma léegi ñu ne ko yow kii lan moo tax parce que tant que ñu ngi nekk moom histoire day am alaa kulli alim mhm. ak li fi jot a jaar ci ay wax yëpp mhm. ñun li ñu bëgg jàmm bëgg jàmm fii jàmm mënatu fi am lenn rek moom mooy nekk jàmm ji mhm. xam nga li ma ku nekk toog sa kër sëy bakkan la mën na gudd fan ko mën na teel a dee am na ñuy sëy te ëllëg sa sëy ba faatu du noonu te teewul ba léegi xale yi dañuy demalante jëkkër ak jabar léeg-léeg di wootante téléphone jàppale xale yi wala yor xale yi waaye li ko bloqué kay moom wax na ko loolu saafarawu na ca fajar man kay foofu laay waxee ak papa papa ne comme que lii dong la may nañ leen ko parce que ki nga ko lebal sa baaya te man maay magam waa may naa ko. mais léegi jëkkër sëñ bi yeewi naa kii xale yi xale yi bi seen yaay demee kii. xale xale yi fan nga jëlee jee woon xale yi sëñ bi yow. bi yaay seen yaay demee. yóbbaale xale yi. yóbbaale xale yi. parce uh-huh. que laa leen jëlee woon. nga dem kër jëli ji leen. région Fatick département Foundiougne arrondissement Djilor commune de la ville de Fatick. laa ma leen di jëli ñu ngi am le 24 problème le 24 décembre 2017 17 problème woowu ma ko. problème problème mu que ne li ma ko ñàkk a mën a wax mu def li ma ko ñàkk a mën a tere mu ba mu dem. mu dem yóbbu xale yi. mu dem yóbbu xale yi bi muy dem di yóbbu xale yi sama papa dafa dem tool man ma dem géej bi may dem géej ma yeeka yëkkati suma dépense jox ko mu ne ma lii nag ma ne ko dépense bi mu ne ma sooy ki joxe dépense jox ko maam jaara ma ne ko jox ko maam jaara lu ma koy joxee. ku wax loolu moom ndaw si. moom maam jaara tax ji nii. kii ni mu koy joxee dépense. ma ne ko kii doom la sëyu maa ngi moom yow mo mu dal di loxam ci mbàjj bi dal tàllal ne man na am bu fekkee bu ngeen lijjanti sotti na dina dem suñu kër mané ko bax na bo re dem seen kër mu ñaw ah, mané ko suma xaalisu dépasse bi nga xamni jox na fekke fekkee lo ak sama facture ndox bi nga xamni jox naa la ko ak teeru facture bi mu ne ah, ma ko tegal ma ko place sangam mhm. ciabi bo boo say bagage ci neeg bi ba paré tegal ma place sangam ciabi ciabi place sangam def na ko suma xaalis lepp ci neeg bi mu ne ah, ma ko boy dem lo xamni ne la ya ko moom mu ne ah man ko yow bàyyi jigéen naan ko yëre bi maa ko jëndoon wala maa ko lii woon dafa mel ne li ngay wax du dëgg ci yow walla suuroo borom lépp loo xam ne yëre la mu ne ah man ko soxlawu ma ko. mais ma lay ñaan mooy loolu loo xam man maa ko moomoon mu ne ah man ko baka fi. d'accord nga dem nga dem jëlee xale bi ci bi muy dem ma daal di dem ji mu toog ba midi booy jàngi. waaw xam nañu ni moom dem na léegi xam nañu moom. waaw léegi alaaji alaaji kii fi muy liggéey alaaji kii fi muy liggéey. waaw kii fi muy liggéey. ndaw si mhm. Euh, borom këram moo doon fi muy liggéeyee. Mhm. borom kër gi. Mhm. moom moo doon woote léegi mais nee na yow barki démb. Mhm. dangaa woo ndaw si. diggante ñoom 13 heures xaw ma ba ngoon ñu ngi diggante CTO. ak fan ak xaw ma fan ak fan. nga koy woo di ko fitnaan muy xam di daanu et te yow saay yi bu ñu waxee nga ne yow mosoo mosoo koo woo. la bëgg mais audio yi nag yow ñu yor. 13 très dur dama lay préciser kay non non jamais. kay ah, ndax xam nga moom ndax wax na leen ne wax na leen dimanche da nga ne yow woote woo. waaw yow da nga ne woote woo. woowuma ka da nga ne woote woo. woowuma ko waaw mais audio audio yooyu kan ko da ngeen li ma wax. jamais ma ciy reculer. non dama ne audio yi la yow la. bis bi ma ko woowee laa leen wax li waral woote bi. dimanche 22 man jël naa suma téléphone woo ko. woo fa même. waxoo fi ne yow boobu tey woo. déggoo ma la waxuma la woo dama ne la dimanche

Chimère dañuy may tuuti. non non defal naa balaa muy defal naa balaa non non non defal naa balaa muy teg audio yi. gis nga audio audio enregistrement téléphone non defal naa yow boo ñu joxee ndigal ñu teg audio bi. bu ma paree ba wax li ma wax non bu ma waxee ba pare li ma wax. man gis nga man. ah non non bu non bu fi nekk di yuux ak di mel. boo ñu jox non bu dee li ngay wax dëgg la boo ñu joxee ndigal. dama na wax dëgg ma xam nga tey su ma neexee man ak yow ñuy wax ma ma wax. enregistré li ma li nga li li ma wax yow li nga wax. waaw non waaw d'accord daf ma wax daf ma wax ma tontu ko man li ma ko tontu. moom la enregistré li ma ko tontu moom la enregistré. waaw d'accord déglu man ma wax. mais enregistrement kenn amul droit teg ko. li mu wax xam nga wérante yi dafa bëri. li waa ji wax dëgg la de. Ah, eh, li waa ji wax dëgg la nee na. waaw nee na. waaw dañu waxante. waaw mais moom waxam rek la ñu enregistré. waaw c'est très important ah, d'accord. waaw mais man lay non non déedéet déedéet alaaji déedéet alaaji téléphone alaaji téléphone kay da ngeen di wax waaw waaw mais comme ne wax doom lañu arrêté dañuy déglu dañuy taxaw la dafa problème loolu fekké wu dafa am problème bi xew loolu loolu problème ki moko kër waaw non léegi léegi yow kay léegi mu soo ko mu damay déglu ma wax li ma wax ak li ma ko tol bu leen bu leen pare ngeen teg audio bi waaw waaw dégg nga waaw moo ne ci audio bi kay teg ko rek benn dañuy gagné temps bu leen neexé mais dama ne yow laa wax li ma wax. dama koy expliqué. ndax yéen ñaar li ngeen wax lan yow lan moo tax ngeen bëgg a déglu ah lan tax man sama explication rek bu ñu demoon ba. ba devant la justice daf may déglu ma wax ma wax. li ma wax daf mm-hmm. ne ma. Mm-hmm. bi mu ma ne ko ndax yow da ngay ñëw Kayar. ma a ko téléphone. Mm-hmm. ne ko da ngay ñëw Kayar. Mm-hmm. mu ne ma ñëw naa Kayar. eh dëgg Papa woon ma ne ko ndax yow li ma dégg ne yow yaa ko fa wax yaa ko fa def nag. mu ne la wax. ne la man maa ko fa wax. wala maa ko fa def. wax naa ko lu ko raw def naa ko lu ko raw. lépp ci audio bi ah. da ngeen wax téléphone la. wax téléphone waaw pap dina ki nga génn wala mana ko yow xanaa da nga dox wala nga mu ne ma sa nangam taam ndey sa nangam taam ndey man ko yow yaa ngi tooñ de mu ne ma yow ba ma ba ma li tax ma jóge fa xam nga li tax ma jóge fa ndax xam naa ne yow doxati yàmbaa nga sàcc nga sa bàyyi day jaay yàmba papa génneel ko day jaay yàmba en même prix daf ma daan tëddee su la ko waxee nga ne ma sàngal góor gi sutura hmm. ma ne ko yaa ngi wax rek de mu ne ah ma ne ko li ngay wax yëpp na nga ko xam du da nga bëgg a dégg dëgg ma wax ma ne ko waan ma sa papa na nga xam ne juru la yow kase daf na yow kase la jur dafa biiral a biiral ba nu génne ko pasi sa bàyyi loolu wax nga ko bi yow loolu wax nga ko ci audio bi waaw da ngay dégg li ma wax laay wax man waaw mais wax nga ko ba pare wax nga ko li ma wax ba ma tontu ko loolu ah, j'ai pas dit ça yow li ngay wax nii moom lañ teg li war a wax jooju wax léegi jël nañ jël nañ ba nga wax ko ba nit ñi dégg dégg nañ ko déjà ba noppi léegi teg naa ko léegi waaw maa ngi maa ngi ñëw waaye xoolal paa bi nag bi ñu waxee ne nañ leen teg sa wax ji ba léegi nii nangootul bokk ci waxtaan bi wax jooju paa boobu concerné ko ndax da nga may déglu man gis nga waaw concerné ko yàlla moo ma tiim gisuma lu ma jaral fen dégg nga non man waxuma waxuma non non xam nga boo a juger ndax maa ngi zuwa nan nga man alaaji Camara laa tudd alaaji Camara waaw alaaji Camara waaw suñu papa ji moo ñu njabootee waaw li ma la wax xam nga ko bu baax a baax su fi papa yi kii ne xaw ma nu mu tudd xale bi jigéen nu mu tudd kii noonu tudd su fa papaay kumba mi nekkoon. xam nga dama ne parce que. dama ne papaay kumba da nga ko menacé woon ni ko di dee wala nga def balaa tabaski. man xanaa kon léegi mu ngi nii nee na bi nga ko woowee tamit menacé ko mu daanu xam ba léegi mënut a wax mu ngi dafa am ABC ah, mu ngi nii toog jàkkaarloog yow. man su ma mënoon maire laaj ñu ne maire diminué rek. su ma mënoon loolu. waaw mais dafa euh, alaaji maire yi dañuy wax nag mënuñ fee toog ñoom dañ ñoom dañ leen a indi. pour ñoom ñaar ñoom wax waaw. acca nañ wax acca nañ wax wax nga dëgg sax wax nga dëgg sax. wax nga dëgg sax ah, non sax. non bu ñu fekkee werante góor ak jigéen. dama ne fu ñu fekkee waxtaanu werante góor ak jigéen jigéen ji ca boppam mooy ëpp tàccu mooy ëpp wax et cetera et cetera xam nga waaye jigéen ñii ne dégg déggaaral toog ànd ak seen sang froid comme ko ñoko mën asama ak yeen goor yi dama ne mom da non non non buñ ko non non buñ ko non jarul tek jarul tek buñ ko buñul ndax gis nga wax ji même sur que négocier won entre famille ak famille man ko bayyi ndax xam nga ko ah ak limu ñew na ci radio wax yow ñew nga ci do ko may non non non. déglu ma problème mu. léegi xale yi nag aussi. xam nga xale itam même xale yoon moo la war a wax ni yow papa yaa war a yor xale fi mu nekk xale yow retourné na sax tee moom bu leen mënoon bu amoon situation bu mu leen mënee yor yow amul situation bi su ma ko amutoon du ma ko yaa ngi dem non mënoo ko sëñ bi nañu waxante rek yaa ngi dem géej mënoo leen a yar te xale bu jigéen mag bi dèjà ku jigéen mag bi dèjà ñu ngi wax ay waxu baaraam ak ay doigté mhm. donc dèjà nekkutuñ loolu moom xoolal gis loolu xale loolu du yéen xale bu ndaw xale bu ndaw xale bu ndaw bi ñu mu doon sëqatee ñun ñëpp ay père de famille lañu comme yow bàyyi nañu ay doom mais xam nga ne xale bi il est malade ki doon sëq nii dafa tok puf puf puf pendant 5 minutes yo xam mu ngi puf puf gis nga man bu dee ordonnance nit do nu ma kay ñeme limay dacc limay dacc limay dacc limay dacc daj li may daj ci par ordonnance nit gënu ma koy ñeme waaw non man c'est que waxul lay kon xam nañu benn non déglu ma xam nañu président nangam dina la dal question de wax deug la yow alaaj may ma rek nang ko menacer ne ko ñun afrique lañu ne mhm. leg leg ngay foy diw sax nan ki yalla na de di retane mu gontu de ci ngoon gi du mënu to set mhm. deeng nga dafa wax ne bi ngeen di wax. Hmm. da nga ko menacé ne ko. Hmm. doo nekkati dara mbindaan mi nga doon ci ngay dee fii ak tabaski loola dal mën a. Hmm. ca ginnaaw euh, euh, ca ginnaaw ëllëg sa. mu daanu feebar ah, ñu koy yóbbu ay dalal xelal. mi ngi nii toog bi bi mu ne xëmm bi. Ah, nee na couple bi couple bi xuloo moom loolu la ñuy waxante nag. waaw loolu sa loolu garaaw. loolu garaaw waaw mais mais moom dafa ne moom da koo weddi. waaw waaw da koo tëkku. waaye moom wet wet. waaw mais wet bi lan la. tëkkuwuma ko da nga may dégg da nga may déglu tëkkuwuma ko xamala dama ne ko bu tabaskee ah. lépp dina leer ndégam da nga bëgg a dégg dëgg nee nga man sama bàyyi dafa biiral ba nu génne ko Passy gi mu dëkk mm. sama bàyyi juruma man kase mu ne mm. ah ma ne ko bu pas bu tabaskee jàmm joxe dinaa ñëw Passy da a dégg dëgg mu ne ah ma ne ko di nga xamante ne di nga dar say nopp ndégam sama bàyyi dafa dëgg gi mu ne waaw ah, ma ne ko dëgg dëgg gi ngeen bëgg a dégg mm. ci rajo laa taxaw di wax mm-hmm. dégg nga li may wax du ma ci réalité ma ne ko dëgg nga bëgg a dégg ah, ko dëgg gi la sama ba nu génne ko fa mu dëkk. waaw parce que demal nga lijjanti. sa magi ndey. li tax sa famille ndey ñëpp. xuloo la woon waaw xuloo de moom. sant non non li mu ma wax. 88 628 89 90. alkokas 88 628. waaw mais waaw mais gis nga nag gis nga Camara gis nga Camara waaw mais Camara. non loolu mu wax. Camara non non léegi kan lan bu léegi moom keneen la conseil loo xam ne yërëm nañu. léegi moom lan moo tax moom mu conseil ne man sama baay dafa biiral. waaw mais waaw mais Camara. xam nga xam nga lan la la mel jàll ko bu dialogue amee waxtaan da ngay wax ma wax. Camara lan ma wax laa ko wax. looloo waral ma ne ko ma ne ko dina dina d'accord ki la dàq soo la dàq xuloo. d'accord kon loolu yëpp mën nañ ko teg waa léegi alaaji léegi loolu saafara ko kon lépp dañ ko teg rek ci cadre xuloo. waaye ñoom ñëpp li ñu doon waxante lu ñaaw yëpp gëmuñu ko. gëmuñu ko d'accord ñoom ñaar ñoo bokk benn baay. d'accord waaye léegi lu jëm nag léegi ci wàllum sëy wi ak jafe-jafe. Euh, allo. allo Ahmed. waaw. daa mel ni ngeen xaw a waaw parce que day léegi day bëgg a forcer gàncax gi moom toujours erreur bi moom moo ko def quoi. mooy góor moom dañ koy laaj. mais da ngeen taxawee position boo xam ne da ngeen koy bàyyi moom moo wax soxla kee wax soxlaam nit ñi ko diglu nit ñi diglu am na ñuy dég dégg mais su ngeen ko bëggee pousser surtout ngeen bëgg a teg audio que da ngeen bëgg a daaneel gain bi mais day mel ni ngeen faral di. déedéet audio bu ñu neexoon ñu teg ko bu yàgg sëñ bi. allo allo allo déedéet déedéet bàyyil Mantulaay bàyyil bàyyil bàyyil bàyyil Mantulaay dama ne dama ne alaaji. Mhm. audio bi kay mënoon nañu koo teg mais ñun xam nañ lii droit audio jàmbur enregistré nit ci boppam du yoon ndaw si li mu def du yoon. Mhm. kii pour nga teg lu jëm ci wàllum audio moom moo lay jox ndigal. moo tax ñu moo tax ñu ne ko ndigal léegi li waaye bu doon ñeneen kay alaaji mhm. dañuy jël rek daal di teg wala bu ko defee ne ko lii kat yow yaa ko wax lii ak lii ak lii loolu la ñun fii fii nekkee wuñ fi nekkee wuñ fi ay faral kii wala faral ka ca des mais kii da di góor rek góor moom fu mu jotee ak jigéen moom bu gaa yi ñëwee yow mii la ñuy yeeg ñëpp yow la ñuy waxal ci koy comme mag ak rakk rek ci kaw bu ma defee rek waaw allo allo am na ñoo ngi sant yàlla bu wér alhamdulilah ah, man de dama teel ah. xaw naa dee sa gis nga wax ju bëri góor moomu ko discussion gis nga nit seen nopp la ñu yore dégg nañ yëpp ndax waxtu feebaree nopp yi koy déglu ñoo war a wér waaw góor moo bëri gis nga xale bi li mu ko dund xaw na de kii sëy mënatu fee nekk métti na xale bi na taxaw dëggal boppam bàyyi xale bi bu mu ci sëyati góor moomu wax ju bëri ok merci beaucoup d'accord <clears throat> merci